na ma ñaari combat ay victoire moom dama koy daan muy diis si kàttu njàll ma xoolaat keneen tegaat ko si. li ma dugalaa ci laamoom ma jële ko si ma daan ko jëlee bu rëy. yow eh yow da ngaa ne yaa ma yaa ma. ngaa ngi rek noppi man damaa ñëw def samay preuve. ñàkk pexe moo tax ma jël la. kii ne oguma woon sax si moom kii bu ma newee si moom xam naa ne xajuma si kawam kii bu combat baa bu si meekoo mu si meeku di nga xam ne lii du combat. man ak moom ñu man xale laa. ni ma ko ñimee musuma bëree mbër ñimee ko noonu ndax daa mënul dara. Du nouveau dans l'arène. L'arène nationale sera en ébullition. Vox Arena, la voix de l'arène, un label international de promotion des sports de combat, moo ñëw ak lu bees tàq. Le g un gala, cinq drapeaux, cinq grands combats ci benn takkusaan ndaw lu rëy. Arène nationale lay ame Tyson de Tai Shinga moo fay jàkkaarloo ak franc bu parcelle mbooloo garga numéro 2 jàmbaar wrestling academy war fa bëre ak Mama Lamine bu Lansar noiro école de lutte Doudou Bakassar war fa jàmmaarloo ak moustique école de lutte Jumbori Baye Mandione junior Thiaroye sur mer moo fay laale ak fourrière Grand Yoff mbooloo alliance Birame bawol mbooloo war fa jàmmaarloo ak caatu ngéwël bu yoof dinañ ca toftal cinq combats espoir mu nekk dix combats ci tàkkusaan bi waaye nag bés boobu dina am ay innovation de taille ndax Vox Arena la voix de la l'arène dafa ñëw indi lu bees une vision novatrice kon nag mbokk yi retenez et notez sur votre agenda Vox Arena la voix de l'arène le G5 un gala cinq drapeaux cinq grands combats ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti